naaj bu tàng la affrontement yi diggante partisan yu Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy force de défense et de sécurité xale yi taxaw ne dañuy jàkkaarloo ak ñoom ngir défendre ki nga xam ne moom mooy seen kii di Ousmane Sonko li ko dale ci Bukot centre ak est Néma xale yi yor ay xeer wala ay cocktail molotov ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi yor seen grenade lacrymogène ku ne di jàkkaarloo ak sa morom xale yi mënatuñu ndax grenade lacrymogène yi nga xam ne jot nañu leen ko sandi tax na ba mënatuñu nooyi looloo tax ba ñu daal di daw wane policiers yi gannaaw ngir dem làqu wuti ji doole ngir gën a mën a jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi ndax xalaatuñu benn yoon wàccee seen ay loxo dogal bi nga xam ne chambre criminelle jël na ko ngir dàq procès Ousmane Sonko aji Sarr ba ci 23 mai 2023 manifestants yi dañu jàpp ni dañ leen bëgg a nelawloo te loolu duñ ko nangu benn yoon looloo tax ñu fas yéene wéyal xeex bi toog kër Ousmane Sonko ak li ko wër bu dee sax dinañu dàq procès bi fekk ñetti weer wala sax li ko ëpp.